salaamaaleykum mbokk yi xarit dañuy seetaan salaamaaleykum Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nekk ci plateau yëpp nag kaw ñu koy defee à chaque fois andil leen nag benn plat boo xamante ne soit di ngeen ko mën a jël pour xëdd wala ngeen mën ko jël pour ndogu tey nag cake aux fruits laa andi comme ni nga gisee sama table ju yaa ngi ji rek am nañu raisin am nañu nen am nañu sucre de canne am nañu li nga xam ni mooy euh, pomme clémentine banane dañ ko defaree nag ak li nga xam ni mooy euh, yaourt bi nga xam ni waa Ardo ñoo ñu ko andil ak délia bi nga xam ni waa Sinico ñoo ñu ko andil ñoom nag du ñu togg mukk te jaajëfaluñu suñu partenaires yi nga xam ne ñoo ñu accompagner fii ci suñu biir waay ku ci mel na waa NMA yi nga xamante ne produit yi ñuy def yëpp c'est 100 pour cent sénégalais am nañu pasta vermicelle pasta macaroni spaghetti am nañu pasta mi mu xam sa am nañu tamit nag li nga xam ni mooy euh, rolli vermicelle mooy grand format bi am nañu rolli coquillette bi nga xam ne 3 kilo yi booy xew booy anniversaire booy mariage moom moo ci gën ñu remercier sécurité garantie ñu andil ñu rek huile jadida chocolat Delia la délicieuse andil ñu li nga xam ni mooy beurre jadida mayonnaise jadida mu ñu jugee foofu nag dañuy remercier rek waa ardo waa ardo ñoom tamit ñoo andil ñu ardo cakri ardo riole au lait am nañu ardo yaourt bi nga xam ne mooy goût vanille bi ardo nag léegi dañuy def li nga xam ne mooy fromage blanc gis nga ni fromage blanc bi waa ardo ñoo ñu ko andil booy def say crêpe wala ngay def say euh, gato moom moo ci gën day dem soit comme plat sucré comme salé euh, utiliser leen ko moom ay produits yu mucc ayib lañ ñu andil ñi nga xamante ne ñooy waa ardo ñu ànd aussi ak ñi nga xam ni ñooy waa kanja koor ba ngoon li ngay xalaat mooy naan meew parce que dafa ñuy euh, gën a yokk euh, vitamine am na nañu meew kànjaar bi nga xam ne am na entier am na demi écrémé moom it bu tàngee neex bu seddee neex mën nga ko utiliser comme plat sucré comme salé moom tamit mu da ciy dem am nañu aussi farine fariment bi nga xamante ne moom aussi pour suñuy petit four la beignet ak euh, li nga xamante ne ni mooy ay crêpe ak yooyu li ñu def nag lu dul ñëw rek tàmbali li nga xam ne mooy préparation farine bi gis nga moom comme ni ma ko waxee day dem suñuy keek suñuy petit four gis nga farine pâtissière la boo xamante neen ni type cinq la mën nga ko utiliser soit beñi wala soit fataaya wala ngay defar comme keek bi nga xam ne moom lañ leen proposé tey 250 grammes de farine parce que nag booy defar pâtisserie mesure bi da ciy am solo li ñuy def nag mooy ñëw rek tàmbali ak li nga xam ne mooy sucre bi gis nga nii tey suñu sucre bi ñu utiliser picc nga rek moom la ñuy utiliser équivalent wu 100 grammes la ñuy utiliser bu ñu paree nag dañuy ñëw rek jël ci suñu yaourt bi nga xamante ne ni moom waa Ardo ñooñu ko andil jot nañu def yaourt bi ak sucre bi bi nag déjà rek dañu ko ak li nga xam ni mooy muscade dañuy ñëw rek mélanger le tout yaourt ak suñu ko mélanger nag le temps muy fondre ñu daal di jël li nga xam ni nag mooy suñu levure voilà équivalent su benn cuillère à soupe la mooy benn sachet bi ne nag suñ ko mélangé nii ba pare dafa xaw a euh, compact de trop dafay laaj nag euh, ñu jël suñu lait kanja bi nga xamante ne nii moom tamit daf ñuy accompagner fii ci suñu biir waañ demi écrémé bi am na am na entier gis nga nii nag euh, demi écrémé bi rek laa jël gis nga emballage bi mu neex a tijji ba dee gis nga meew bi moom bu seddee neex bu tàngee neex damay ñëw rek daal di sotti moom tamit ci suñu appareil daal di tëjaat bu baax gis nga ni mu neex a conservé ba dee ñu waat voilà gis nga nii nag soowu ardo bi nga xam ne moom lañ ciy def ardo vanille bi boo ko ci xasee ba def nag jarul nga ci yokkaat beneen faafan ndax li nga soxla yépp soowu ardo bi dala koy jox gis nga appareil bi nii la la ñuy soxla mu mel homogène am couleur te du am benn grumeau seetaan def nañu li nga xamante ne ni mooy suñu euh, pataakeeg bi ci li nga xam ne mooy suñu muul bi jëm au four dañu def benn moitié bi ñu pare nag étaler ci pomme yi nga xam ne dañu ko dagg en julienne teg banaan def tuuti raisin bu la neexee nag fruit yi nga ko changer soit nga jël clémentine wala nga jël ananas mais ñun tey ñaari rek la ñu jël bu ñu defee noonu ba pare rek am nañu fii rek li nga xam ne mooy euh, suñu vermicelle multicolore bi dañuy ñëw rek saupoudrer ko tuuti ci kaw le temps que muy génn ci four bi ñu nag ci defaat tuuti chocolat délia euh, mën ko nag dress pressé ba mu rafet da ngay préchauffer nag à l'avance four à 180 degrés boo ko ci dugalee nag nga wàññi ko taal ci suuf bàyyi nag 15 euh, euh, à 20 minutes mu ñor ci kanam tuuti rek ñu daal di génnee suñu cake mën ko découper. Euh, Pape Cheikh nag comme ni ngeen ko gisee nag li nag moo nekkoon suñu cake aux fruits bi nga xam ne moom lañ leen andil tey yomb na nooy na neex na te neex naa defar it déjà lii pour nga defar ko c'est très simple te mën na la servir soit pour mu servir la aussi wala pour ndogu comme ni ñu koy waxee à chaque fois li ñuy def nag mooy waa élément ñi nga xamante ni ñoo ñu andil farine pâtissière farima bi nga xamante ni moom la ñu utiliser pour defar suñu cake aux fruits bu tey bi ñu andil ñu nag euh, pasta mi euh, vermicelle pasta mi macaroni ak roulis vermicelle roulis coquillette ak mu xam sa mi nga xamante ni tamit kenn du dem mu des am nañu tamit spaghetti jaajëfal waa Sénico la qualité garantie euh, waa Kandia ñi nga xam ne ñoo ñu andil lait bi nga xamante ni dafa riche en protéines am na entier ak demi écrémé li ñuy def nag mooy aussi jaajëfal rek suñu partenaires yi waa ardo ñoom andil nañu fromage ardo nature ardo riz au lait ardo càkri lii nag moom euh, du ñu def rek lu dul rek bàyyi leen ba demee incha allah ci beneen recette